dalee na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyantoo wolof njaay nee na fagaru moo gën fajo sénégal jamono ji sénégal a ngi ci danger ndax ni nga xam ne moom la ñu yore réew mi maanaam amul lenn loo xam ne lu ci baax la dara baaxu ci du samay kàddu kàddu yu Mamadou Lamine Diallo la ma ngi ci journal bi di la témoin nee nii nga xam ne moom lañ ko yoree amul lenn loo xam ne baax na ci daala mbir mi demul ci nga dikkul mbay laara askanu sénégal dañoo sonn ba maara détal yi te loolee nag war nañu see wax jamono ji gouvernement bu sénégal dañuy tappale te loolee war nañu ko bàyyee wàllum tricherie sa la ñuy yëngoo secteur santé ba ma nii maanaam dafa daal di gëllu goosee tâtonnement bi nga xam ne moo am jamono ji loolee war nañu ko lijjante maanaam làmbatu jamono ji moom la gouvernement bu Sénégal yi defa la waral làmbatu gi nag Mamadou Lamine Diallo nee na weesuwul nag ceeb bi nga xam ne jamono ji seer na ba jéggi dayoo ak suukar si nga xam ne seer na ba jéggi dayoo ak ji nga xam ne seer na ba jéggi dayoo lu jëm ci wàllum ñàkk carburant gi Mamadou Lamine Diallo nee na attention danger Sénégal jamono ji nañ si wax lu mooy loolee lii raam sa ñag ba la jëm te bu fa amee kër du baax ndax ñii nga xam ne ñoom lañ dénk réew ñu yore réew mi maanaam dara baaxu ci loolu nag askanu Sénégal ñoom seen bopp war nañu ko xam yéene kaay gi de laas xëy duñu xibaar naan ñu am na lu toll ci fukk ak juróom-ñaar cay député yoo xam ne bokk ci majorité bi ak ci opposition bi ñoom nag daan nañuy saisir conseil constitutionnel ndax fan yi nga xam ne moo la ñu génn dafa am ab loi boo xam ne dañu ko voté assemblée nationale ngir nag ñu wàññi limu député yi ci liste nationale bi loolee la député yi bëgg na conseil constitutionnel daal di koy dakkal ndax ñoom dañoo jàpp ne loolee bokkul ci démocratie te loolee nag maanaam teguwul ci yoon yéene kaay gi di Sud ñu koy fekk fa Seydina Issa Lay Samba Yoff muy weddi ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn dafa demoon ca pale ba am ñu mu àndala moom Seydina Issa coow li nag bi mu na kurru bëri ñu ne Seydina Macky Sall recevoir na ko démb la doon weddi nee na gisantewul ak Macky Sall waaye dem na sa pale ba nee na Mahmoud Saleh ak Mor Ngom la gisantel sa pale ba lan la fa doon wutee nee na lam fa doon wutee dafa am ab comité boo xam ne ñoom dañoo dëkk Yoff jàmmalaay bëgg nag lu jëm ci wàllum moo taxoon askanu Yoff sant ko nag mu gisante ak état ngir nag loolee ñu mën ko lijjante nee na métti woon nag waaye nag bàyyiwul yeewi benn yoon te nag jéemu te dem sax nag fekki Macky Sall ndax yére wuñ ko ci noonu naam nag jamono la joo xam ne ñu bari ñoo ngi transhumé waaye nee na moom bokkul ci ñi transhumé ndax na dafa judd ci famille boo xam ne am na yenn yoo xam ne jomb na ko defa moom Seydina Némé Issa Laye nee na ba muy dem tàggu na Khalifa Sall tàggu na Barthélémy Dias explique leen mbir mi ni mu demee yéene kaay gi di Vox moom Seydina nee na amul lenn loo xam ne làq-làqal na ko ca ba muy dem pale nee na bëccëgu ndara kàmm la dem wurul benn yoon yéene Jibril Fall nee na day dem ci élection législative yi moom journaliste bi journal bi nee na tamit ñi nga xam ne ñooy nappkat yi nee ma pêcheurs yi ak mareyeurs yi ñoom tim dañuy dem ci élection législative yi ndax nag ñoom dañoo gis na seeni jafe-jafe kenn saafarawu ko kenn waxulu leen ñoom nappkat yi nee nañu sax ci mouvement ànd suqali napp gi ci la ñuy demee ci élection législative yi ndax ñoom nappkat yi dañoo gis na bëri nañu jafe-jafe yoo xam ne ñoom ñoo koy dund te kenn kaasulu leen loolee moo tax ñoom ñu gis ne système bii nga xam ne moom la ñu yore lu jëm ci wàllum napp gi ci Sénégal dara baaxu ci te nag ngir nag mbir mi baaxa ñoom il faut ñu dugal ci seen loxo pêcheurs yi ak mareyeurs yi jamono ji ñoom waaj nañu nag li nga xam ne mooy législatif yi comme ni ko Pape Djibril Fall journaliste bi moom tim waajee yéen kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu Omar Sow mi nga xam ne mooy PDG Odis Group International te nag jamono ji ñu daal di koy teg loxo ci lu jëm ci ay njuuj njaaca yoo xam ne toll na si ñetti milliards complice am di Mansour Bouna Ndiaye daal ne mes na menteña moom Omar Sow Odis Group International niki démb am na nag ab retour de parquet dañu ko tuumaal ne dafa falsifié am ñu bari ñoo xam ne encaissé na seen xaalis wax leen na leen dinaa wutal ay terrain ci xolu Ndakaaru journal bi nee na maître Mamadou Ndiaye mi nga xam ne mooy maire bu Thiaroye te bokk ci Yewwi Askan Wi moom tudd nañu ko ci mbir mi waaye nag waa Libération bi ñu laajee nag maître Mamadou Ndiaye na ko coow lii ñuy dégg coowul ñetti milliards te nag ñu teg si loxo Omar Sow yow tudd nañ la si lan nga ciy wax moom maître nee na mbir mi daal du ci wax yéeni kayi gi de laas xëy dañu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Touba ñoom nag yàgg nañoo am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum inondation loolee nag Macky Sall bëgg na ko saafara moo tax ni ki démb waa ONAS ñoo ngi woon Touba lu toll si ñaar fukk ñetti milliards la Macky Sall génnee ngir nag liggéeyu Touba yi liggéey bi dina toll ci fukki weer ak juróom-ñett yéen kaay gi nee na lu jëm ci wàllum ñàkku carburant gi askan wi nga xam na ñoo yewoo Kolda ñoom nag sonn nañ ba maara de taali carburant amul Kolda waaye tamit carburant amul fi nga xam ne mooy sigi cora moo tax askan wa fa yeewoo dañoo mer ba maara de taali nga xam ne mooy Sédhiou foofee tamit njëriñu carburant yéene kaay gi de la sa ministre Sophie mi ñu dénk wàllum pétrole bi moom nag nee na jamono ji mbir mi lijjanti nañ ko yéene kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar nan ñu combat bi nga xam ne moo wara a dox diggante Modou Lo ak Ama Baldé est-ce que combat dina am jamono ji nag ñu bare bare defatuñu ci seen yaakaar Modou Lo nag bi ñu ko laajee ci combat bi ndax dafa blessé woon nee na jamono ji wér naa pëlëng man Modou ñu ne ko nag ndax pare nga ngir bëre Modou Lo nee na jamono ji munta bëre